motax bo beugé yakamti ndax ne sëriñ bi néna sayu sayu mo topé jëm ci yalla yalla rek ñittel nga bëgg yegg néna ma nattu la ndax lima lay natto moy ndab li nga yor da tim dama kay raxas raxas googu nak bo muñul doo ko fa nek bo muñul doo ko fa nekk dana metti lool sëriñ Abdou Lahad bu la waxon fimu jaar sëriñ mbacké mi ñu wax la fimu jaar wax ni sama touba gi bima nekké khalifa la fi saxal ñël Nak jitu woon yenn mam maam ka yenn taay du am daana jeli fi ay gejj mom seigne Saalu mbake di dem di dem Côte d'Ivoire de ko fa jaay seigne Abdou Lahad da nga nan dem fekk ca tolam mu téye machine mbay bi di bay seigne seigne mata fil la nee ma toog ci ngaay maa ngi moom ma gis nga néeg balé man kaa amun ma ah, mo doon nekk seigne Abdou Lahad engrais bi nga deg ne ko dan jaay man kaa amun ko ah, mun ma fi la ka dan jaay la ka fu doon jox ko damay xey gis buntu bi bu ko rek ma am seigne Abdou Lahad na bi bu ñewé moo daan jaayal boppam nee su demee dem ba dem nee na ma koy jaayal bu ñëwee ma werse ko nee am na bis sax nee na sëñ bi xam ni ko mataar mun ko mbàkke mun ko waa daaru muxti de kii mu ni mu ni sekob daaru muxti naa leen bàyyi nee na mun ko lu tax mun ko dan dan maa lebal ñetti téeméer yi bëri gay alaam te fay ko bi metti lool sëñ mataar nee na man ko mbàkke yow kay doo leen bàyyi ñoo lay bàyyi mun ko wax nga dëgg dañoo may bàyyi te nee na bisub keroog sëñ bi laxat oto bi ma indi woon amul essence bu ko yóbbu nee na mun ko oto bi dafa jagadi xam nga ñoom ay wolof lañuy wax dafa jagadi moy dafa pan sëñ ma tànnee ma dem yobbu ko ñu liggey ko fanweeri dërëm laa ci fay te da am pièce bu ci manki won xam nga loolu yag la nee na ma andi ko mun ma xam naan day ndox ndox mu ma yobbu day suma ko ba jëmatil dana bax waye o mo ndox mu ma yobbu ndax jëmatil rek la bëgg dem fekk na la bëgg dem ma dem duure ko ba mu fess ma ñew ni ko mbacke am oto bi di waxuma jëmatil waye man na dem fu la neex mun ko kon nak dem Tuubaa ndekete lolou suñu blaat suñu blaat niko matar mun ko mbacke mun ko malay sante sant geureum lay gërëm matar niko mataar bi sëriñ fallu mbacke mi nga xamni mok sama waajur ñoo bokk ndey ak bay muy khalifa sëñ touba bu ñewoon fi lima lay defal lima kay defal du wess lima lay defal yi ñaar kep la yamale nek na lool duggu na sëñ Abdu Lahad matar ne nee sëñ dem ba am ba nek khalifa sëñ touba nee na benn bis ma ñew ci mom mu jox ma ciabi auto ni mama tal ak ma waxoon ko bisit an nañu dem ci daara ja sëñ Abdou Lahad yónnee café ñu defar café gi cafeteeru kafe andi ko suukar suñ ko suukar amul ci daara ci mu ni wër leen ñu wër wër gisuñu dara mu ne li ma ci xam daal nañ ko xel nu ko waaye mën a naane naane ko noonu ne ba na xel sëñ ma taane yenn am ko góox ba xool ko mu bàyyi ba mu pénété mu yàbbi ko ndax day wex doo ko mën a naan sëñ Abdou Lahad moom lu sa fu suukar ak lu sa suukar la woon waaye nee na bin demee ba nga xam nekk na xalif sëñ Tuubaa nee ne benn bis ma ñëw ci moom am ñu indi fa camion suukar sëñ Abdou Lahad mi dem leen sotti ko ci kees sàngam ñu sot yeb ko fa nee na gon jot ban julli takkusaan nee na mu boot loxoom yi na mu ko baaxoon def nee di wër ci kër gi nee an ñu mang maag moom si fi ni yebbi si mu feranku laay jublu penko dan ni nan ma tàngalal ñaari kafteere café kafe bu ko ken suukar nee ñu tangal ko indi nee mu ni xëccale ben saaku suukar ñu ñot di bëgg mu xar ñu teppi ko nee muy tibb sotti suukar ba mu saf nee na xel ne suñ ma tànnee ñu na ya mun ko mataar mun ko mbacke mun ko suukar mun ko kafe gi lu mu lay fatali neena lool fatte won naka sax neena man de mun ko fàttaliku nga ci dara ja kafteeru kafe ba mat ba mat ndangal won ta amul lu ko suukar suñ ma ko waaw mbacke mun ko mun ko mata li lu mu doon mun ko mbacke li lepp suukar de mun ko xam nga tay lu ma neex suukar mun ka mun ko liggey suñ tuba rek am solo ñom suñ tuba la ne dan di ko xool lu dafa daan wax ni Clédor foofu laay jeexale Clédor Diagne journaliste bu mag ba mas na laaj ni mbacke talibi dano yi danoo gis saa yoo mbir ab liggey di day reey reey go xam dañ nan du yegg ta bu yegge nga sémbaat bu ko upp suñu laxat bam kay tontu jaadu ci turwa da ko ni jagn mu ni ko mbàkke mun nga xam nga fi tollu ci liggey Sëñ Tuubaa dama tollu ci waxtu wo xamni ni ku xey suba tok ba gennaw takusan ba jant bi jëm ci sox ta li nga wara def yang kawara def balaa jant so ana kooku nu def mun ka mbake xana farlu mun ka fofu la tollu ci liggey seigne touba motax lu daanu ma set lu gën reey lola ma indi ko ndax sëñ tubaa muy mottali lépp na dama nan dox diko seen sama kanam diko gestu diko seen sama gannaaw di xol sama ndajor diko seen di xol sama càmmañ diko seen waye legi nak gatch na ma ñaar loxo ya seigne Abdou mo waxon lool muy seigne touba gatch na ma ñaar loxo ya motax munu ma def len lu wuuteeg lu bëgg seigne touba bëgg danaan wax ni maanaam dama damaa toog am pas-pasu liggéeyu sëñ tubaa lépp lu ma wuti xool ko sëñ tubaa ka fa andi lépp lu ma wuti sëñ tubaa ka fa andi ma far jox ko sama bopp foofu la suñu yëpp laxat toll woon kon foofu mu toll woon fa la murid yëpp war a toll kon ñu góorgóorlu àdduna dem na sëñ tubaa nee na ñetti fan la démb weesu na ñu ngi ci tey ëllëg di ko gudd sama loxo bi man na delu dembu defar lu yak won man na fagu tay man na man defar lip te du ngeen dem kon lepp mom la kon lepp lip ñun talibé lip seigne touba la lepp lu ma don rek seigne touba la motax bu benn taalibe gis bopam talibé bo gis gis seigne touba ci mom jappal ni man na la defar bu nu xébanté bu nu bodanté ndax bi talibé yi lu nek ci nek motax seigne touba bo boo goné yi mu ni mm, ku nek ku ne ngi ci ku ne ngi ci laan wax waaye dawul wax gone yi ndax gone ñëpp ci nekk te ñëpp gone yi Sëñ Tuubaa la moo xam téeméer sàngam waaye gone bi Sëñ Tuubaa nga Sëñ Tuubaa mooy mag comme mooy mag nag ñu ñëpp ay goneem lanu kon taalibi Sëñ Tuubaa yi ci la lépp nekk bu benn taalibe xeeb moroomam taalibeem ndax boo ko xeebee alal Sëñ Tuubaa nga xeeb te alal Sëñ Tuubaa ko xeeb boo ko xeebee rek def nga njaaxum bis boo ko bis boo ko xeebee rek xeeb nga Sëñ Tuubaa misaal ma lay jox nekk na ci njaareem am ku ñëw ni ko mbàkke gone yi de yemunu dara mu ne ko on oh, kilifa de bu newee ci këram nga ñëw ne ko sa gone yi yëruwunu waxoo ko waxoo gone yi moom nga wax kon lépp loo laal ci taalib bi Sëñ rek na nga xam Sëñ Tuubaa nga laal ñu ñu ngi nii micro yaa ngi micro yaa ngi nii technicien da ko fi indi bu ñu ñëwoon di di jël micro yi di da lu leen mu dugg léegi mën ko tegal micro yi da ko moom moo tax alal nit bu am moomee alalam da koy sàmm Sëñ Tuubaa nag taalibeem yi ñooy alalam da bañ na ko ba nee duma ko jox koy fowe moo tax kon ci jamonoom am na ku mag mu sa génn jamono taw ba ko wuutu te teguwul ci yoon mbolo mako topon señ sëñ bi tawam yàgg mu ni woo leen ma diw ñoko ko mun ko bàyyil kii nga top demal ci diw daal ko yebal ci rakam non la ko topé ba ko yépp jeex mu ni ni la kay ñoy sama alal duma ko joxe koy fowé kon talibi señ sëñ ñoy alalam nan fonk alal señ Tuubaa yi te mooy taalibe yi sëñ yi wa rahmatullahi wa